ñun waa Jëppal Derklé nekk parti ak mouvement yi nga xam ne ñoo ànd di jàppale président Macky sal nekk ci coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar grande majorité présidentielle ñoo jël engagement ndaxte gëm nañu ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar bu Jëppal Derklé moom mooy jumtukaay bu nga xam ne foofu la ñuy nasee di noccee lépp si jëm si wàllu politique ak lu nga xam ne ñëpp ñu bokk si mouvement yooyu parti yooyu ak mouvement yi ñu tudd nii fa la ñuy toog di waxtaan lu jëm si grande majorité présidentielle gis ne ñun tamit ndax parti yi ak mouvement yi nga xam ne ñoo nekk fii si Jëppal Derklé bokk si mouvement présidentiel war nañu liggéey booloo pour ñi nga xam ne ñoo nekk si euh, coalition bi Benno Bokk Yaakaar fii si Jëppal Derklé te di taxawal président Macky Sall war nañu liggéey suñu biir am unité ak concorde gëm nañ ñun tamit ne mbooloo bu ne maanaam partie bu ne wala mouvement bu ne si Benno Bokk Yaakaar dafa gëm ne ñun war nañu gagné élection territoriale yi nga xam ne ñooy am le 23 janvier 2022 dañu war a ubbeeku war a am solidarité suñu biir wala yërëmante suñu biir pour teg liste bu nga xam ne mooy gën si liste yi ñu yaakaar tamit ne ndam boo koy am wala booy am chance pour gagner élection mairie tànn njiit bi si la bokk nga tànn njiit bu nga xam ne doomu gox bi la ku gox bi xam ku am njëriñ si gox bi kuy taxawu waa gox bi la ak ku am vision ak ku am vision pour defar suñu commune ñu ne ñun parti yi ak mouvement yi nga xam ne ñoo nekk si benn Bokk Yaakaar bi loolu wéyee ku si nekk si ñun si sa turu parti wala sa turu mouvement sa turu mouvement jàpp nga article premier d' accord nañu ne Ababacar Sadikh Bèye moom la ñu tànn pour mu nekk tuñ tête de moom la moom la ñu tànn pour mu nekk candidat de la majorité présidentielle bu jëppal Derklé si élection yi di jëm élection locale yi ñun ñëpp ñi ngi engagé wu que dinañu boole suñuy militant suñuy xamel suñuy am-am ak suñuy mëneef yëpp pour incha allah le 23 janvier ñu jox Ababacar Sadikh Bèye ndam li comme maire de la commune de Dieuppeul Derklé ñi ngi engagé wu ne liste yi nga xam ne conseillers yi dinañ ko proposer te mu jógee ci commission d'investiture bi ak euh, waxtaan ak candidat bi incha allah liste liste ñun daa ànd nañ ne que dinañ d'accord ci proposition yoo nga xam ne ci commission d'investiture boobu lay jógee. de proportion yi mu jël en compte parité maanaam boo tegee jigéen teg góor wala boo tegee góor nga teg jigéen dina am aussi représentativité maanaam si gox goxaan yi ku si nekk li ngay li sa li sa li sa mérite dinañ ko si dinañ ko teg mais surtout xam-xam ak aussi euh, nit koo xam ne ku ku neex a présenté la ku am ku am dayoo si ku am dayoo si askan bi bi si mujj mooy euh, bis bu ñu yàlla mayee ndam te incha allah yàlla dinañu ko may coalition bennoo Bokk Yaakaar bi yëpp jàpp nañ ne dinañ taxawu équipe bi nga xam ne que moom mooy nekk équipe municipale su la conduite du maire Ababacar Sadekh Bey nga xam ne nga xam ne équipe bu am équipe bu équipe bu équipe boo xam ne ñëpp a siy liggéeyandoo ñëpp a siy jàpp dina jàppale ñëpp tamit surtout li nga xam ne moo amal njëriñ population jëppal Dieuppeul Derklé salaamualeykum loolu lañ ma waxoon naa ko jëppal mbooloo mi maa ngi leen di euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax ne bisu tey bis bu rëy la pour euh, suñu commune Dieuppeul Derklé euh, dañoo am nag lu rëy xam ngeen ne euh, président de la république président makisal dafa am benn li tubaab di wax marque de fabrique maanaam dafa am doxalin bu muy doxee dafay am nu muy politiquer euh, dafay am nu muy jëfee ak ay nawleem et comme moom mooy suñu leader mooy suñu royukaay moom la ñuy liggéeyal euh, ni muy defee rek moom la ñuy jéem a defee ñun tam ci biir commune bi 2012 ba tey mu am kuréel bu ñu wooyee Benno Bokk Yaakaar boobu ba léegi mu ciy liggéey yàlla jàppale ko ci ñu gis ne histoire politique bu Sénégal kuréel wu mel noonu buy dajale ay parti ñuy liggéey ci diir bi mu am ñu ñaan yàgg yàlla diir boobu di continuer di law loolu mësuta am ci biir Sénégal ñun nag ñi koy liggéeyal ci gox goxaan yi boo bëggee liggéey moom ni muy liggéeyee day metti day metti tuuti moo tax lii ñu am ni tey dañ ciy sant yàlla euh, parce que dañu topp ci ay tànkam topp ci vision am topp ci ni muy doxalee moo tax boobu ba léegi ñuy liggéey ngeen gis ñii ñëpp mouvement ak parti yi fi nekk ñëpp nga xam ne kenn ku ci nekk ci ñi ma liste yëpp ku ci nekk mënoon ngaa toog fii ma toog di wax ku ci nekk mënoon nga diriger list bi ñuy ñu ma jox tey donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp ci seen générosité ci seen yaatuwaay seen mbaax ak seen euh, bàyyi seen bopp ngir euh, commune Dieuppeul Derklé ngir Sénégal ngir président de la République lu rëy la ñu am nag tey parce que boo boolee lii ñu am ci commune bi yëpp presque kenn desul day mel ne kon sas nañ la sas nañ la te ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di ñaan ngeen di ñu bañ a fàtte ci ñaan parce que nag euh, am na charge yoo xam ne buñ la ko tegee nga xam ne c'est c'est espoiru <coughs> commune la Euh, <clears throat> espoir espoir ñi ñu euh, ñi ñu jàppale ñépp que ñu bañ a leen décevoir li may bëgg wax mooy que ne volante boobu lañu am pour dem joŋante bi gañe ko waaye li ëpp solo nekkul gañe bi li ëpp solo. mooy ñu gañe ci anam yu rafet liggéeyandoo ci anam yu rafet indi nag ay solution pour suñu jeunesse pour nos femmes pour nos parents pour nos enfants pour jëppal Dieuppeul Derklé li ñuy woote nag du lu ndaw moo tax comme ni ko ëmma waxee léegi dañoo bëgg a def commune dañoo bëgg a def conseil municipal boo xam ne équipe nationale wu jëppal Derklé la wax maanaam la compétence euh, euh, moralité bëgg ko tal ko mën ko c'est important foog nga bëgg ko foog nga tal ko foog nga mën ko bu ci benn rek ñàkkee rek day sooxe donc il faut ñu ànd ci nag ak <clears throat> laabiré laabirante nan lañ koy waxee. ñu laabirante biir. ñu générosité. pour être plus simple, simple et direct. et la générosité c'est important c'est le don de soi comme. ñoom ni ñu ko defee nii ma bëgg leen fekk si nag ci seen don de soi boobu que man Aboubacar Sédé Bèye dinaa leen ci fekk si ñu nag tànn parce que loolu moo gën a metti fi mu nekk nii signé nañu mais li gën a metti mooy investiture parce que ku nekk dina ci bëgg a nekk ñu def ce don de soi pour constituer l'équipe national de Dieuppeul Derklé ñu dem liggéeyal suñu commune liggéeyal suñu ay ndaw liggéeyal suñu suñu xale teg xale yi nag ci au centre de nos préoccupations lii ñu am tey maa ngi ñaan ñépp ñu jàpp ko ak suñu fukki loxo liggéeyee ko ak suñu xel woo ci képp koo xam ni mën nga ñu jàppale opération jëli bi ñuy wax du jëli nit rek jëli compétence la jëli moyen la jëli xalaat la jëli équipement la fépp fu munti nekk nit ku baax sax ku dëkk beneen commune boo ko mënee transféré mu dëkk si ci suñu commune na ñëw bu bëggee indi entreprise am ci suñu commune na indi entreprise yi suñu commune loolu la bëgg on veut la meilleure commune du Sénégal loolu la ñuy woote innovation innovation innovation maa ngi leen di remercier yéen ñëpp